Naar Samb di responsable politique APR bu ñu ràññee lool ci Touba Guédé Kawsara ci liggéey bu rafet bu muy def jege bu mu jege askan mi nga xam ne nag ñoo nekkee foofee bile association ngeen di gis muy ànd takk liggéey jëriñu nekkee ci Touba Guédé sara xëy nekk ci bile liggéey ngir fas yéene seetal fi nga xam ne nag moo di seen gox boobee mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne ñi ngi ko tàmbali ci suba teel gi délégué de quartier ba ñu rafetlu seen liggéey ak ànd ji ñu ànd waaye tamit gërëmaale responsable politique bi ñuy wax Naar ci ni muy jàppale bile association. wàññi rek ndax luñ yàgg a bëgg la luñ yàgg xalaat la léegi nag bu ñu demee ba suñu borom dogal lii am fi dañ ciy kontaan di ci bëgg di leen ñaanal waaw ndax euh, naar man bés bu ne dama koy wax sama moom nee na bés bu ne dama koy wax ay nit boo nekkee ñoom te bëgg seen avancement bëgg lépp loo taxaw ñu taxaw ja da nga leen di jàppale ca la nga man ndax nit ku nekk fa nga toll rek nga leen mën a jàppale ni alaaji muy taxawee ni lii la bëgg formé ko keroog bi ñu àndee ñëw sama dama ko rafetlu jigéen nag fépp ngeen fi nar a càngee rek wax leen bu soobee yàlla lu ma ci mën danaa ko def loo ci war a dox danaa ko ci dox lu lépp loo xam ne si léegi lu koy tàggante ni dinaa ko def incha allah ci kàttanu suñu borom ndax euh, lii rek mooy àdduna mbooloo mooy doole bu ngeen àndandoo lépp lu ngeen ci nisar rek suñu borom dana ko mottali waaw action boobu sax ngi xam ne nag moo ko jiite moom itam yëkkati kàddu rafet lu baax jëfee nu responsable politique APR bii nga xam ne yàgg na leen dimbale ci ay jumtukaay yoo xam ne nag dañ koy soxla ngir mën a seetal bile gox te gëm nañ ni Serigne Touba dinañu jàppale ngir ñu am ci ndam parce que loolu rek mooy bëgg-bëggu association naar wax na ko c'est apolitique dañuy liggéey ngir Serigne Touba mais nag liggéey itam ngir jariñ du ñu yam ci Guédé Kawsara itam bëgg nañ dañuy dem ba àgg ci ñu mbalem Touba ñu téye ko suñu loxo gis-gis boobu la ñoom parce que nag jàpp nañ ni am nañ capacité bi expérience bi am na fi waaye nag ci loolu yëpp ñu sant bu baax Naar Sam mi nga xam ni moom ak Serigne Bassirou ñoom lañ jox relation extérieure ñu ciy liggéey liggéey bu am solo euh, doy na sëkk ci leeral loolu rek seen teewaay ci moom la jaare kon mel na ni liñ leen dénk ñu ngi ciy def lu kawe seen suñu jot lu jigéen liy bokk ci association bi di xamle ni njàppandal ji nga xam ne nag am na ci seen diggante. te ñu ngi yar tamit ci biir association ñu ngi jëlee yar ak teggin waaw suñu tonton Alaaji jiite ñu tamit deful dara lu ñaaw jël ñu ñun ñëpp njaboote ñu baag Serigne Touba mun naa ne ñun ñoo ko gënal ay doomam. réunion bu bi moom di ñaax ñi nga xam ne nag ñoo nekkee ci association bi waaye tamit di ñaax yeneen i responsable politique ngir ñu def ni naar sàmb moom naar sàmb moom may sax yëkkati kàddu daal di jëmale ci ñi nga xam ne noonu la yàgg taxawoo bile association waaye tamit ci kàddoom mun a lii lépp rek da koy def ngir takku ngir liggéeyal dëkk bu sell bi di tuubaa waaye tamit ngir gën a jege ñi nga xam ne nag ñoo di askan wi dañ fi taxaw tey en tant que Naar Samb citoyen nekk si koñ koñ bi en tant que Naar Samb sol mbubbu association bi bi nga xamante ni moom mooy association ànd takku liggéey jariñ ngir jàppale suñu quartier biñ ko defee aussi ñu am yéene gëm-gëm ànd ak ñii président bu mu ngi nii Bas maa ngi moom ñoo nekk relation extérieure ñi fi jot a wax muy délégué de quartier dañ koy sant bu baax parce que biñ ah, bi El Hadj Ndiaye amee idée bi ñëw wax ko ko aussi dañu ko maa nga ca ba suba ba ginnaaw suba lu ngeen ci bëgg bu ngeen ñëwee lim ci man dina ko def ñun aussi ñu nekk ay ndaw yu am engagement am gëm-gëm ci Touba parce que sëñ bi dafa wax lu am solo képp koo xamante ni nekk nga si dëkk bi de euh, da nga war a sàmm war mooy dëkk bi sàmm war mooy dëkk bi mooy xool li nga xamante dëkk bi warloo na ko ñu koy def muy set setal muy bañ fee def loo xamante ne sëñ euh, euh, Cheikh Ahmadou da ko da ko tere woon ci dëkkam kon loolu moo tax ak loolu moo war ndaw ñi takku liggéey non amul amul benn kilifa muy ak man di doon amuñu responsabilité bi ndaw ñi am ndaw Touba waxuma Gédé kaw sarada ndaw Touba responsabilité bi ñu am di ko dox di ko wax amul benn kilifa bu leen cay fekk parce que bu leen ci fekkoon du demee nii parce que ñu bëree bëri am nañ loo xamante ne tey mën nañu xëy au moins mobiliser ndaw ñëpp defal leen ay bagages yoo xamante ne dinañ man di liggéeyal sëñ bi ci seen dëkk bi loolu moo am solo te loolu mooy dëgg te mooy wér kenn ku nekk la nga am muy association bi ñoom seen i dërëm ak seeni i ñaar dërëm ci leen jënd seeni bagaas ñoom seeni dërëm ak seeni i ñaar dërëm ci lañuy dox ngir euh, euh, dox ngir jëm suba te niñ ko commencé tey noonu lañ koy commencé ba ginnaaw suba lii daal moo nekkoon di gërëm aussi le président El Hadj parce que comme ni ko délégué de quartier waxee rek moom dafa nekk koo xamante ni euh, benn gaala bu infatigable koo xamante ni gëm-gëmu quartier am bëgg-bëgg quartier moo tax saa su ne ci lay xëy ci lay dox ñun aussi en tant que euh, responsable aussi nekk si quartier bi ku ñu seen wandi woo mooy kii tëjal bunt bi ak ki ki wut fu mu fanaan kii tëjal bunt bi du leen boole. par rapport ak euh, li nga xamante mooy association bi xaw naa see def tuuti sama loxo. au moins euh, euh, la fois passée mooy élection yi passé nii am na ay quelques na ay quelques bale au moins yoo xamante ne jël lañ ko jagleel ko waa quartier bi. kon loolu moo nekkoon li moo nekk li nga xamante ne ñu ngi ciy dox ak yeneen social yoo xam ngi ciy dox ngir quartier bi. jeexal yëkkati kàddu ñaax ñi nga xam ne nag ñoo dëkkee ci koñ boobee ngir ñu gën a mën a sàmmal seen bopp cet gi nga xam ne nag moo am foofe nar sàmm nag responsable politique APR bii defati jëf ju am solo waa kaw Kawsara di ko rafetlu bu baaxu baax.